Rewmi 24 TV lan leen ak jàmm mu mel ne diggante Youssou Ndour ak Macky Sall bu doon la sëy la sëy ba tas na ndax bu ñu xoolee rek kii di Youssou Ndour daal dina quitté lii di gouvernement wu Macky Sall bokkatul ca benn Bokk Yaakaar ah, kii di far Ngom nag nga xam ne rek moom lañu doon woowee géwélu Macky Sall te jamono yi rek mu doon député moom mii di Farba Ngom jamono yi groupe WhatsApp bi nga xam ne rek créé woon na ko dugal ci ay journalistes yoo xam ne rek ca TFM la ñu bokkoon ñoom ñooñu ñu nga woon ca groupe ba fii ñuy wax ak yéen ñi kon moom moomu di Farba Ngom daal dinay rek journaliste yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci groupe bu whatsapp am boobu kon mi ngoo ko kon daal instant bi ñoom ci garsa garsa lañ nekk rek ginnaaw rek ba nga xamee ne kii di Youssou Ndour moom nee rek daan na quitté ci gouvernement Macky euh, ak journaliste am ak euh, waa APR ak Farba Ngom fi mu nii ci loolu lañ nekk bi ñu xoolee rek groupe whatsapp ba nga xam ne Farba Ngom créé woon na ko dugal ca ay journaliste yoo xam ne rek ci groupe bi di groupe Futurs Médias lañ bokk ñoom daal dinay retiré rek yooyu journaliste yi nga xam ne ñu ngi woon ca groupe boobu fi ñu wax ak yéen nii